tamit sujet bii nii ça intéresse de plus en plus de personnes donc dañuy ñëw si base yi tey on va voir vraiment les bases lan mooy bitcoin euh, nan ngay amee bitcoin soo amee bitcoin nan nga koy dencee nan ngay yónnee nan ngay recevoir mais aussi yeneen information su fekkee intéressé na nit yi sur minage ak yooyu donc déjà bitcoin man dama tàmm di wax bitcoin ñeent bitcoin moo am quoi donc bitcoin philosophie bi bitcoin réseau peer to peer bi bitcoin protocole bi mais aussi bitcoin cryptomonnaie bi moom la ñëpp di utiliser tey donc bitcoin philosophie bi mu ngi jugee si cypherpunks yi ñi nga xam ne ñoo utiliser cryptographie pour mun a préserver vie privée wu nit yi pour mun leen protéger contre état yi nga xam ne ñu ngi recueillir ay informations ci ñoom de plus en plus saa su nekk par tous les moyens donc ñooñu ñooñu ñu ko créer ay outils pour jàppale nit yi donc si outils yooyu am nga Wikileaks yi nga xam ne ñoom ñoo doon génnee information classifiée notamment ci état américain bi am ngeen outi outils comme PGP mais aussi vraiment am ngeen Hashcash vous avez plein d'autres outils yoo xam ni gars yi moom lañ génnee mais aussi am na ñeneen ñoo xam ne créé woon nañ ay crypto-monnaie avant Bitcoin tu vois donc amoon ngeen Nick Nick Szabo moom créé woon na Bitgold à l'époque amoon ngeen bii monnaie de Weida amoon ngeen yeneen donc du coup après gars yooyu noonu dañoo fekkee tamit dérive finance bi vers les années 2007 2008 man, en tout cas, c'est ma conviction. Nous, nous, nous, ils se sont dit, mettre maintenant à disposition cette technologie-là, cette cryptographie la au service de la finance, pour la permettre un système de paiement peer-to-peer -peer sans intermédiaire. Parce que l'ol mooy Bitcoin, un système de paiement peer-to-peer -peer sans intermédiaire. Philosophie bi l'ol. léegi nous dem si deuxième Bitcoin moy réseau peer-to-peer bi. Pourquoi réseau peer-to-peer? Comme ni ko comme ni ma ko waxé ci philosophie bi, système de paiement peer euh, sans intermédiaire maanaam yow y a pas une entité centrale entre toi ak ki nga war a yónnee y a pas une banque y a pas une agence y pas un établissement de crédit y a personne da nga ibbi sa adresse da nga ibbi sa portefeuille pardon nga yónnee say bitcoin mu dem directement si nit kooku noonu après ñeneen ñi dañuy jot copi wu transaction boobu noonu et c'est tout donc réseau peer to peer yi pour bon je pense que ñëpp mës nañ utiliser ay réseaux peer to peer to peer sans sans s'en rendre compte bi le plus connu c'est torrent nga xam ne ñëpp xam nañ ko pour télécharger ay film ay ay musique ay plein d'autres choses donc réseau peer to boobu day def yow da ngay am benn client sa PC wala sa benn hardware e client boobu noonu day nekk en même temps un serveur client boobu tamit day stocké registre transaction yëpp yi mës a depuis création blockchain boobu noonu bon ici on parle en donc soo amee lu ñuy wax full node yow tu auras toutes les transactions yi mës a am ci réseau bitcoin depuis 2009 te loolu mooy force bitcoin réseau peer to peer boobu tamit mooy tax nit ki mën na gàddeel boppam ay cryptomonnaie moom mooy nekk propre banque am nit ki ci portefeuille am lay yónnee keneen ki jot ko peu importe fu mu nekk dans le monde réseau peer to peer boobu noonu mooy tax kenn mënul censurer kenn en tout cas sur un vrai réseau peer to peer personne ne peut censurer personne réseau peer-to-peer boobu noonu tamit moo tax soo mënee yónnee nit bu nekk Chine wala mu nekk Groenland wala bu nekk États-Unis ak yooyu amul kenn ku mun a ñëw bloquer sa envoi comme banque yi ni ñu def ñeneen donc après loolu pour mu am il faut ñu dem si benn troisième bitcoin mooy protocole bi maanaam un ensemble de règles boo xam ni gars yi dañ ko codé en C++ boo xam ne c'est open source maanaam képp ku am connaissance yi képp ku am compétence yi mën nga dem nga xoolal sa bopp même mën nga fay kenn mu dem xoolal la donc ku nekk mën na ko auditer loolu moo tax aussi mu affaire bi neex quoi c'est-à-dire que ku nekk mën nga dem nga apporter sa contribution que ce soit directement sur le code que ce soit dans les tests que ce soit dans la documentation c'est open source chacun peut apporter sa pierre à l'édifice donc jusqu'à aujourd'hui il y a plus de 1600 développeurs yoo xam ni contribué nañ à Bitcoin soo leen ko gis Siripo Gita bu Bitcoin justement donc protocole boobu noonu moom mooy définir règle de validité validité wu transaction yi moom mooy définir règle de validité wu bloc yi moom mooy xool adresse yi yan forma la ñuy am soo yónnee nit aussi si ban yoon la war a jaar am na tamit benn affaire bu ñuy wax même pool maanaam foofu la transaction yëpp di dajaloo balaa ñu dugg si benn bloc euh, am ngeen tamit bloc propagation bi maanaam bloc yi su ko benn mineur xasee ba trouvé jàllee leen na nay pardon pour ñoom tamit ñu valider que mineur bi nii il a bien fait son boulot donc ensemble de règle boobu bi nga bi tax réseau bi mooy doxalal boppam moom la ñuy wooye protocole moom la ñuy wooye le consensus mais au final parfois da ngeen di dégg nit yi suñu wax bitcoin il parle plutôt du protocole et enfin lii lépp moom moo ñëw abouti fii li ñëpp xam mooy bitcoin la crypto monnaie benn token boo xam ni dañ ko jox benn valeur Donc aujourd'hui, valeur bi c'est autour des soixante mille soixante cinq mille dollars ça dépend de période bi nit yi mën nañ ko yónnantee di ko joxante saa su nekk fu nekk dans le monde nit yi mën nañ ko garder seen téléphone seen PC seen hardware wallet parfois si yenn navigateur euh, internet si yenn extension yi navigateurs yi donc crypto-monnaie boobu noonu instant yi nii moom la nit yi gën a xam mais c'est juste la partie visible de l'iceberg en sachant que moo gën a bëri léegi loolu suñ ko waxee beneen question de base bi nga xam ne nit yi la plupart du temps il se pose mooy fan laay jëndee bitcoin balaa fan ngaay jëndee bitcoin il faut d'abord nit ki laaj boppam lan laay doyee bitcoin su fekkee pour spéculer pour spéculer pardon c'est-à-dire pour jënd ko mu jël de la valeur nga jaayaat ko c'est possible su fekkee c'est pour te protéger maanaam au lieu ngay garder sa xaalis ay euro dollar ak yooyu ñuy perdre de la valeur nga ni bàyyi ma def ko si bitcoin ba nga xam ne day jël de la valeur c'est possible su fekkee yow da ngay jënd bitcoin juste pour mën a yónnee kenn koo xam ne mu ngi à l'extérieur kooku récupérer bitcoin yi transformer ko en sa propre devise c'est possible aussi donc bitcoin franchement cas d'usage dafa bëri quoi donc c'est pas limité seulement à un type de personne wala un type de use case donc pour jënd bitcoin il y a plusieurs moyens il y a les moyens y a les decentralized exchange maanaam broker yi nga xam ne sa se disent décentralisés y a les centralized exchange moyen peer to peer bi mooy lan mooy la plupart du temps ay groupe Facebook ay groupe WhatsApp ay groupe Telegram surtout ay groupe Discord yoo xam ne nit yi dañ fay daje ils sa connaissent dañuy jënd jaayante entre ñoom en sachant que kenn du xam kenn du yëg kenn du xam ni yow am nga sax bitcoin wala am nga ay sat boobu c'est le moyen le plus sûr <laughs> c'est à la fois le moyen le plus sûr et le plus dangereux parce que au final il faut vraiment que ngay xam ni ñoo ngay sekkal transaction yooyu noonu nga xam leen wala nga wóolu leen parce que koo si xas ba jox sa xaalis bu daw ah c'est fini donc moyen boobu si ça marche nga jox sa xaalis nit mu jox la bitcoin à part yow ak nit kooku noonu keneen xamul ni am nga te nit kooku sax mën na bañ a xam sa vrai sa vrai euh, euh, sa vrai pardon sa vraie identité quoi deuxième bi mooy li ñu woowee les decentralized exchange maanaam c'est du code code boo xam ni ils ont automatisé tout de telle sorte que yow soo ñëwee nga yor benn cryptomonnaie disons Ethereum wala keneen nga bëgg ko échanger en bitcoin c'est automatique ñoom ils ont déjà tout codé tu appuies juste sur un bouton ak yooyu maintenant problème bi mooy la plupart des DEX comme on les appelle c'est pas vraiment si décentralisé que ça en sachant que ay entreprises ñoo nekk si gannaaw ay développeurs ñoo nekk ci gannaaw ba léegi ñoom ison une intervention manuelle ci déroulement wu transaction yi et enfin li ñu ci gën a xam mooy centralized exchange yi donc ñi ñu ci gën a xam Sénégal je pense que ay Binance la wala Binance si vous am ngeen après euh, ay ñoom Kraken am ngeen Paxful ay yeneen ak yeneen maanaam ay entreprise yoo xam ne da ngay dem nga ibbi fa benn compte soo ibbi benn compte dañ lay laaj say information say papier pièce d'identité pour def procédure de si noo your customer soo ko defee ñoom ñu ubbi loolu compte après c' est par système de tiers maanaam ay ay étage la su fekkee da nga bëgg a dépenser plus de mille dollars wala dix mille dollars il faut nga joxe encore plus de documents ainsi de suite donc ñun la plupart du temps pour ñi nga xam ni tàmm nañ ñu déglu fii nii dañ leen di déconseiller mais tamit on voit que yooyu c' est les moyens les plus faciles pour nit yi xam. crypto-monnaie yi parce que da ngay dem ibbi sa compte même su fekkee dañuy jël see documents xam nañ la tu appuies sur un bouton nga jënd wala ñu boole laa kenn koo xam ne day jaay nga jënd si ñoom et c'est très facile d'utilisation maintenant c'est très dangereux donc nous on le conseille pas trop trop trop léegi nit su xasee ba jënd maintenant qu'est-ce qu'il doit faire mooy da koy génnee fan la koy génnee si benn portefeuille virtuel portefeuille virtuel yooyu na wooye la ñuy wooye donc portefeuille virtuel yooyu mën na nekk donc benn application mobile que ce soit Android ou iOS mën na nekk benn client donc benn logiciel boo leen installé seen PC mën na nekk benn extension si benn navigateur internet mën na nekk lu ñu woowee hardware wallet boo xam ne day yor forme clé USB wala calculatrice wala bon ça dépend ci forme yi donc yooyu yëpp ce sont des moyens pour garder seen clé privée parce que li nit yi xamul tamit mooy que quand man Nourou su ma yónnee Baye un bitcoin par exemple bitcoin boobu noonu bougé wul si réseau bi damay yónnee juste à Baye benn signature pour wan la ko ni léegi bitcoin bii nii nekk si réseau bi yow yaay borom te loolu la moo koy prouver mooy clé privée bi moo tax clé privée bi c'est extrêmement important instant bii nii pour facilité euh, nu ñu koy garder ak yooyu. les gens utilise les mémotique maanaam mooy liste de douze mois parfois vingt quatre mots ou plus yoo xam ne nit ki da ko war a da ko war a bind fenn garder ko loolu mooy représenter clé privée am et képp ku ko détenir mën na débloquer ay bitcoin am ba pare transférer ko keneen donc il faut faire très attention à ça dans tous les cas le fait que nit ki garder ay bitcoin am si wala ay satsam wala beneen crypto monnaie si telle ou telle solution ça dépend vraiment vraiment de ñaata la ñaata la si yor quoi soo yoree benn cent euros cent dollars wala cinquante mille francs CFA en bitcoin mën nga dem nga def ko si benn application bon application bu sécurisée voilà quoi après nag montant yi su commencé bay jël yenn proportion yi nii nit ki dafa war a dem euh, déjà am type de portefeuille yu ñuy woowee HD euh, wallet hierarchical deterministic wallet wala suy def ay transaction mu utiliser li ñu wooyee PSBT partially signed bitcoin transaction maanaam ay bitcoin am da koy tas da koy tasaare si plusieurs adresses wala si plusieurs wallet yoo xam ni dañoo am seeni propre clé privée et que pour yow nga def benn transaction il faut que par exemple deux clés privées sur trois signées ak yeneen ak yeneen y a encore d'autres mécanismes yoo xam ne si un peu plus technique pour mën a sécuriser transaction yooyu pour mën a aussi nit ki nan lay gàddee crypto-monnaie mi donc wax nañ lan mooy bitcoin wax nañ nan lañ koy jëndee wax nañ nan lañ koy gàddee léegi nan la réseau bi di sécuriser bitcoin c'est à travers le minage maanaam mineurs yi ñoom dañuy jël transaction yi am yëpp ci benn intervalle dix minutes ñu dugal ko ci benn bloc bu fit bu ñuy wooyee bloc candidate ñu ko xasee ba dugal ñu construire lu ñuy wooyee bloc header bi avec différentes informations te ñu war a calculer lu ñuy wooyee nonce donc nonce boobu noonu c'est juste gars dañu war a simuler des milliards de fois benn chiffre ba trouver benn hash benn hash benn empreinte cryptographique bu am un nombre bien défini de zéro ba nga xam ni c'est inférieur à benn cible li ma wax ni c'est un peu compliqué peut-être mais minage bi noonu la demee et c'est à travers ce système là nag que mineurs yi ñoom ils sont suñu trouver benn bloc et que bitcoin boo leen gis sur terre si minage la jóge alors que yeneen cryptomonnaies yi la plupart en tout cas développeurs yi ils sont capables yokk deux trois lignes de code ñu générer yu bees bitcoin bitcoin boo leen gis dafa jóge si minage donc rémunération boobu noonu aujourd'hui c'est six virgule vingt cinq bitcoin par bloc trouvé au début de bitcoin c'était cinquante bitcoin par bloc donc chaque quatre ans day divisé wu par deux xam nga donc loolu tamit moo tax bitcoin dafa am benn nombre limité maanaam mooy vingt et un millions plus précisément vingt millions neuf cent quatre-vingt-dix-un mille neuf cent quatre-vingt-dix-un boo xam ni bon potentiellement ce sera atteint vers l'an deux mille cent trente waaye donc grosso modo ni la fa bitcoin demee et que écosystème bitcoin bi c'est quatre acteurs vous avez les utilisateurs mooy ñi nga xam ni justement dañuy jënd bitcoin dañ koy garder dañ koy utiliser pour jënd ak jaay ñooñu c'est les plus puissants parce que soo utiliser bitcoin bitcoin amul valeur après ngeen am commerçant yi ñooñ tamit il faut pas les négliger mooy nit yi nga xam ne dañuy jaay ay produit ak ay services ba pare dañuy nangu bitcoin comme moyen de paiement à la place day euro dollar wala à côté day euro dollar ñooñu tamit ils sont extrêmement importants après ngeen am mineurs yi comme ni ñu ko waxee léegi nii mineurs yi ñoom ñooy sécuriser réseau bi donc cent mineurs yi bitcoin n'existe pas parce que cent mineur ba kenn du valider transaction yi au final bloc du am Ouais. Donc, il n'y pas aussi de nouveaux bitcoins ki se génèrent. Sans yi le réseau bitcoin n'existe pas. Et enfin, développeurs, ils sont très importants parce que ñoom avons sécurisé code. bi ñoom ñooy le code. bi justement, démb Demb, en fait, mise à jour bi gën a rëy de l'histoire de Bitcoin démb la am te yëgoo leen si dara peut-être pour la plupart mu ngi tudd Taproot Taproot y avait une mise à jour en 2017 bu tuddoon Segwit Mais bi c'est le plus important et bi dina permettre plein de choses dont plus de sécurité, plus de d'anonymat pour transaction yi et la possibilité de développer ay smart contract yu gën a complexe sur Bitcoin. Eh ben lii yëpp il a fallu quand même des mois voire de quelques années benn process la boo xam ni ñenn ñi ñooy ñëw def ay propositions lu ñu woowee les BIP Bitcoin Improvement Proposal su ko defee. après gars yi testé su ko gars yi testé après ñu développé ko concrètement suñ ko développé <coughs> après ñu génnee benn version de test version de test boobu su génnee am nit yoo xam dañ koy installé ñoom tamit ñu déroulé ay test seeni PC di relever ay problème ak yooyu et que si le nombre de OK est assez voilà est assez large c'est c'est comme gestion de projet classique hein tu donc si le nombre de OK est assez large après si lay jàll et bah sachez que Taproot dafa jaar étape yooyu noonu yëpp jusqu'à récemment donc grosso modo on va dire lii mooy base yi vraiment lii mooy base yi quoi maintenant le micro est ouvert à tout un chacun il n'y a pas vraiment je le répète il n'y a pas de quand il s'agit de Bitcoin parce que lii lu bees la et c'est assez opaque maanaam il n'y a pas bu nit yi am donc le le micro est à tout le monde pour toutes les questions donc merci encore si seen présence et je donne la parole à déjà ñi nekk si stage bi à commencer par Baye Malé et Samba bi yéeg léegi nii